قلبك هو min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida barke borom Tuuba bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo yi ak ziyaar yi Cheikh Mouhamadunil Muntaqa bu ko ñaanal yàlla sunu boroom yàggal ko fi te defal ko ak wér ba mu leen mbooleem ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul ko ñaanal mbooleem njabootu sëriñ bi ak taalibe yëpp di nuyu bu baax sëriñ Maam Balla mbakke mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Abdourahman Mbàkke di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi bu baax te defal ko ak wér waaye di nuyu bu baax itam euh, kilifaam sëriñ Moulay Mbàkke xalifa sëriñ mballa Coro te di ko ziyaara di ko ñaanal moom itam sunu boroom yàggal ko fi te defal ko ak wér bu baax waaye di nuyu kilifa gi nga xam ne itam ca ëttam la ñu nekk muy benn ëtt ci ëtti Serigne Balla Thioro yi muy Serigne Cheikh Abi Mbacké di ko nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi bu baax a baax te defal ko ak wér waaye di nuyu nag bu baax tey ziyaara kilifa yu tedd yi nga xam ne e, njabootu sëriñ bi lañu e, ànd ak ñun jataay bi sëriñ Abdul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Abi di ko nuyu bu baax di ko ziyaara Mbakke waaye Cheikhul Mbakke moom Serigne Cheikh Abi moom itam ñu di ko nuyu bu baax te di ko ziyaara ko jox wàccuwaayam waaye Serigne Cheikh Abdou moom itam di kenn ci njabootu Serigne Cheikh Abi ñu di ko nuyu bu baax di ko ziyaara te di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di am mbégte nag bu baax fas yéene waxtaanee jenn jàmbaar ci jàmbaar yi Serigne Touba yi nga xam ne seenu tàgg rot na ci alquran ci minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila kenn la ci jëmm yu tedd yooyu muy Serigne Abdourahman Mbakke ñu bare bare itam gën koo xam ci sëriñ Abdou Mbar Mbakke xam nga ne tagg woowu li tax ma ne la valable na ci moom mooy boo dégloo waxtaan wi ba ñu wax la ay jukkoom wax la ab liggéeyam wax la ab taxawaayam ci lislaam jaare ko ci ëttub Cheikhul Khatim di nga xam ne laaya jooju fees na ko dell ndax suñ borom daa baaxoo ci alxuraan eh, di tagg nit lu bari du tagg du jaar ci turoo waaye jëf ji lay tagg képp koo xamante ne ji feeñati na jamono jëf-jëf ju mel noonu rek day tàbbi ca tagg niki bu nit defee ab safaan buy dal ci kawam lu ci bari du tudd tur jëf ja képp koo xam ne jëfati nga jëf jooju am àtte bu mel noonu sëriñ Abdou Rahman Mbakke nag di sëriñ Abdou Mbar suñ borom tabaraka wa taala da ko waajal ci wet gu mën di doon ndax arab yi dañuy wax ne saaye bu yàlla bëggee mbir rek da koy wutal ay asbaab ay wàccaay ay sabab moom nag suñ borom da ko waajalee ay wayjur yu baax way jur yu tedd way jur yu sell sëriñ Balla Coro mi nga xam ne ku ko tudd tudd Cheikhul Khadim ci muy mbokkam di ab taalibeem di ab soppeem di léppam mooy way juram kon moom mën nga ne ku baax ki Cheikhul Khadim mooy way juram ndax sëriñ bi ak sëñ Balla Coro ñoo bokk sëñ Mbàkke Mor Anta kon nga mën ne sëñ Balla mooy way juróom Euh, waaye boo ne sëñ Balla ne sëñ Mor Anta Sali boo ne sëñ Mor Anta Sali ne maam Balla Aïssa boo ne maam Balla Aïssa ne maam Maaram te sëñ Fallou daan wax ne Maaram mooy sunu àddinaan noonu waa Mbàkke ni ki way juróom jigéen itam boo ko jëlee mu bokk ci ay tànneef muy soxna bu Boussa njaay moom sëriñ Darou Assane Ndiaye sëñ Darou Assane Ndiaye moomu kenn ku ne xam na ne sëñ Touba newoon na li ko góor di jiitoo ci yàlla day coobare suñ borom bu muy def ci jaam la waaye du caagin lu koy takk tubéy di jëf ngir daraja yoo xam ne sëñ Daaru Asan Njaay amoon na ko ak melokaan ak ay jagle ak ragal yàlla goo xam ne daje woon na ci sëriñ Daarul Hasan eh, radiyallahu taala anhu sëñ Daaru Asan moomu nag mooy wayjuru soxna bu sa Njaay soxna bu sa Njaay mi nga xam ne eh, mooy wayjuru sëriñ abdu Rahman Mbakke di sëriñ Abdou Mbar waaye soxna bu sa Njaay moomu itam eh, soxna Asu soxna su baax su ñuy wax soxna Astu Jóob mooy way juróom bu jigéen soxna Astu Jóob moomee nag moo maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Saliou Fall noo bokk wenn way jigéen muy maam Seynabou Ndiaye ndax kenn ku ne xam na ne sëñ Ahmadou Raqiya bi mu wàccee ab liggéey ba def ab liggéeyam ba mat fekkan na euh, soxna Seynabou Ndiaye amoon fa Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Saliou Fall ba liggéey ba matee dañ ko yóbbu Belel Diop ci kilifa gu ñuy wax Issa Alima Diop mu àggale fa ab liggéeyam euh, Issa Alima Diop moomu nag moo meññ soxna su tedd si nga xam ne moo di soxna Assu Diop soxna Assu Diop kon mook maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Saliou Fall ñoo bokk jenn ndey kon da ngay gis ne sëñ Bay euh, da ngay gis ne sëñ abdu mook sëñ Bay Mbàkke jaaxal euh, boo leen di taarixal toujours damay faral di wax ci wax ji ne ñoom mbokkum réew mi lañ ndax yii ma tudd nii muy diggante askanu maaram euh, jaar kër sëñ Daaru Assane Ndiaye ba ñëw ci ëttub Cheikh Ibrahima Fall foo tàbbi ci réew mi rek di nga leen fa fekk suñ borom tabaraka wa taala nag kon wutal ko way jur yu baax yu tedd yooyu te alxuraan waxoon na ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbihi gàncax gu baax moom suuf su baax rekk ku mën a génne kon suñ boroom teel na ko wutal wàccaay yu baax a baax a baax bi loolu amee itam xam nga ne euh, sëñ Balla Coro sëñ Touba a jekk daa méngoo woon mbiram féetewoo léppam moo tax soxna su baax sii di soxna bu sa Njaay bi mu waree ñëw ci loxoob sëñ Balla Coro ci ndigal sëñ Touba la fi ñëwee bi mu ñëwee ci ndigalul sëriñ bi itam euh, nekk fa ab diir ba 1914 xam ne 1914 ci la jëmm ju baax ji di sëriñ Abdourahman Mbacké feeñ jamono waaye feeñi jamono itam ci dëkk bu tedd bu sell boobu di njaareem nga xam ne dinaa faral di wax ne njaareem feeña fa jamono rek ab garaat la ci am murit moom nag mu am taw tawféexi feeñ jamono ci njaareem loolu itam di beneen cër boo xam ne ñëw na fekk si yi nga xam ne jotoon nañ ko tudd waaye bi loolu amee itam ku baax ki cheikhul xadim radiallahu taala anhu moo joxe tuuba ba noppi tuddal ko boppam looloo itam doonaan yeneen i ngëneel yoo xam ne daje na ci ndax euh, euh, nit mën na baax euh, sëñ bi joxe tur te loolu rek jagle ju rëy rëy la waaye sëñ Tuubaa nag taawul la boppam tuddeel la boppam ba pare tudd ko Abdurahman ibnu Awf muy saxaabaab yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne mbooleem ñi nga xam ne dañuy jàng siira muy histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp xam nañ kan mooy Abdurahman ibnu Awf xam nañ ban taxawaay la amoon xam nañ gan njàmbaar la amoon ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xam nañ nag gëdd gi ko yonent bi sallallahu alayhi wa joxoon ak ni mu ko fonkeen ak ni mu ko bëggeen ak ni mu ko warmaal leen waaye dinaa wax ne bu doonoon xamuñu woon wàcc waayam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax te sëñ Touba jël kenn ci ak njabootam tudde ko ko rek loolu rek jaral nañ ñu dem gëstu ji kan mooy Abdourahman Ibn Awf di nga xam ne boroomu cër la boroom daraja ju rëy la ci lislaam sëñ Touba tudde ko jàmbar ju tëdd ji di Serigne Abdourahman Mbacké bi mu ati war dal jàng way juróomu tedd ba sëriñ Balla Coro waan anhu indi ko ci cheikhul xadim sëñ dalal ko jàng kon ba tey boo dee gëstu euh, histoire euh, sëñ Abdourahmane da ngay gis ay xusuus ay jagle yu bari yoo xam ne da ko am ci sëñ di méngoo mbiram mépp mbiram moo yëkkati rek dangay gis sëñ Tuubaa ni mu nekk ci biir bi mu waree dal jàngit sëñ Tuubaa dalal jàng xam nga ne bi nga xamante ni gi sëñ Tuubaa dalal na ko jàng am na benn naar bu ñuy wax sañ Assane Ndiaye euh, benn waay bu ñuy wax sëñ Assane Ndiaye genn kilifa moom itam jàngal na ko doonoon ku ràññeeku woon ci alxuraan ju rafet waaye itam mu jàng ci benn naar ci njaareem ba peek li nga xamante ne ji moo di alxuraanul karim mokkal ko ci mokkalin wu rafet ndax Cheikh Mamadou Lamine Gaye Firdawsi daan wax ne doomi soxna bu jàngu tilim moom nag suñ borom dimbali ko ci tilim jooju wala taas boobu nga xam ne mën naa gaar doomi soxna suñ borom teel na koo dimbali. ba mu teel a jàng alquranul karim ke cheikhul xatim radiallahu taala anhu waaye bi mu jàngee alquran ba noppi itam am na leneen lu lay xaar ndax dañuy wax ne ki nga xam ne mokkal na alxuraan mokkalin wu rafet képp te yem ci jiiteeg naa file rek ak wàcceb kaamil lay man waaye attey charia yi du ci mën a teqantal benn li koy may nag mu mën a xam yooyu mooy mu dem jàngi xam-xam mu daal di sóobu nag ci njàngum xam-xam njàngum xam-xamam itam soo déggee jaarwaay yi ci jaar benn bu ci nekk rek doyan na ndax bari na ñoo xam ne ñu ngi leen di tudd ci biir réew mi ak ci yoon wi di leen soow ci xam-xam benn ëtt rek lañ jaar ci ëtt yi nga xam ne Sëñ Abdourahmane jaar na fa te ëtt yooyee tey jii boo ci tuddee ku mel ni Cheikh Mahamadou Lamine Diop ak dagan yi nga xam ne boroom xam-xam la euh, nit ku baax la nit ku maandu la te sell te aman xas ci Sëñ Tuubaa bu doonan daa jaar ci loxo yooyu rek euh, yaakaar naa doon na doy sëkk waaye yemu ca waaye sëriñ mu dem mi nga xam ne àggan nañ ci eh, di wax ne sëñ mu dem ak alaaji Malick si daanañ leen tëkkale ci xam-xam bu bari eh, ak ak ni nungoo sonne ci xam-xam ak ni nga ko nungoo xereñe waaye itam barab boobu itam mu jaar fa ci xam-xam waaye itam mu jaar ci sëriñ Abibu Mbakke imaam sëriñ Abibu mi nga xam ne ñi ko xam-xam nañ ne daawut yem ci jàngal nit kese waaye dalay jàngalab xam-xam ba noppi defal la ak taalu bi nga xam ne noonu tam bokkoon na ci ay jagleem yoo xamante ne ji amoon na ko moom Serigne Abibou mu jaar ci ndax kenn ku ne xam ne ne bi mu nekkee ci loxo yi Cheikh Moustapha euh, ca Daaru Naim Cheikh Moustapha boole woon na ko ak Serigne Abib Serigne di ko jàngal xam-xam euh, mu jàng ci loxo yi Serigne Abibou euh, ca Daaru Naim googu te Daaru Naim googu ba mu fa nekkee di fa di dafa dund booba dund ga jafe na am na taalibe euh, sëñ Balla Coro boo xam ne nii Jibril Diouf lañ koy wax moom la leen sëñ Balla Coro boole la ndax am na yoon woo xam ne sax sëñ Balla mas na faa dem euh, seet sëñ Moustapha wax nañu sëñ Moustapha la jëkk ñëw na ko ana gone yi mu ne ko ña nga ca daara ja daru naayam euh, sëñ Balla waaj bi sëñ Balla waajee ñëw bi mu ñëwee fekk leen daara ji ni ñuy dundee ak tumuranke geeg ni mu xawee doy waar mu laaj leen lu ñuy dundee ñu wax ko ko ci la sëñ Balla laajte benn taalibe mu neex Jibril juuf soriwut ci boor boobu mu ñëw mu ne ko bis ni kat damaa bëggan gone yi nga war lu seenub dund muy sëñ Abdou ak sëñ Mbay waaye daana wax ne Jibril Diouf daana wax ne dund ba day eh, lëg ko sëñ Balla di sas sas ci jooju jamono weesuwut sangal ak baraay ak daqaar ca jooju jamono waaye sax daanañ wax ne sëñ Mbay da daan wax ne tabuk sëñ Abdou da koo jaaxalan sëñ Abdou Mbar ndax sëñ Mbay nee na loola lam daan jafe-jafe ba nga xam ne buñ ko amaa day doon lu rëy ci ñoom daanaka bu ñëwee balaa am semaine sëñ Abdou dina joxe lépp ci ngir tabe gi mu tabe nga xam ne moom nee na àggan na sax ci bu ñu fi ñëwatee ma ne ko nan ko séddoo booy maye sa la nga maye ko bu jeexee nga toog waaye du ma du ma la bàyyi tey ji nga joxe lépp ngir tab gi nga xam ne fi ne boo xoolee sax euh, mbooleem ñi nga xam ne dañoo xam sëñ Abdou te du ko woy benn ñu du ko woy ci bind wala ñi nga xam ne ay témoignage la ñuy joxe dina néew nga dégg koo xam ne wax na ba bàyyi te waxul ci tab gi tab gi nga xamante ne ji suñ borom defaral ndox ki nga xam ne jawaat la woon ko tabe woon mu nekkan ci barab boobu ci daaru naayim ndax xam nga daaru naayim dañuy wax ne barab la boo xam ne taaw yi taawu yoon yi fële leen Cheikh Moustapha formé nga xam ne sëñ Moustapha daana toog ba yàgg mu yéemu ci naayim gi ne inna la fi naayimin waaye naayim googoo tam mi ngi jublu euh, daaru naayimam googu nga xam ne wax nañ ne taaw yi taawu yoon yi boo leen dee wër ñi ëpp ci ñoom Cheikh Moustapha ngi leen forme ca barab boobu nga xamante ne ji moo di Daaru Naim te Daaru Naim itam bi ko fi mu Moustapha yore bokk na ca lim leen daan wax eh, fii de metti na ci doomi sox soxna waaye dama bëgg bis bu ma noppee ci yéen ba kenn ku ci nekk doon sa xalifa baay di nga xam ne sànku ma sab liggéey loolu nag tey jëmm ji ñuy waxtaane muy sëñ Abdou Rahman Mbacké di sëñ Abdou Mbar ku ko jël rek ay injaazaat yi nga xam ne def na ko ay réalisation ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko di nga xam ne euh, la ko sëñ Moustapha waxoon xawma kan waaye moom dal na ko waaye bi mu jàngee ci barab yi itam euh, mu nekk koo xamante ne itam ci wàllu jàng tawilul baax la ci maanaam ko gudd ab jéego la ndax dem na ba gànnaar euh, sàkku ji xam-xam te xam nga ne ba muy dem gànnaar moo sëñ Mbacké Madina ñoo àndoon ak sëñ Cheikh euh, Mbacke Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma ñu nekkandoo fa dafa jàng foofa itam ñu fay jàng ci loxo naar boo xam ne moom itam Abdourahman la tudd ba mu fa nekkee itam nga xam ne gànnaar rek dafa na fa juróomi at yoo xamante ne jii xam-xam la fay sàkku ak di yaatal alluwaam fa la ko sax sëñ Mbacke ma dina bàyyi ak euh, jëmm jooju di sëñ Cheikh Ahmadou Gaynde Fatma mu jàng fa xam-xam bi mu fa jàngee xam-xam nag ba nga xam ne. am na sëkk lu ko doy sëkk ab yóbbal ci li doomi soxna di di di di sàkku ci xam-xam gannaaw ba ko alxuraan ji laytaaye ba noppi nag mu dellu siwaat nag ci réew mi eh, daal di dellu nag ci loxooy ay kilifaam eh, bi loolu lépp amee itam ba mu dellusiwaat siwaat ci loxo eh, sëriñ Balla Coro mi nga xamante ne ji moo di way juram di léppam di ab sëriñam doon koo xam ne ku taqoo ak sëñ Balla la doon koo xam ne ku bëgg sëñ Balla la doon koo xam ne ku waggar sëñ Balla la te warmal sëñ Balla lool noonu la ànd moom ànd ak moom xam nga ne ba 1947 bi nga xamante ne ji ci la sëriñ Balla Coro eh, ñibbe àjjana gis nga bi sëñ Balla di waaj a ñibbe àjjana da ko woo moom sëñ Abdourahman mii mu ñëw mu woo ay rakkam ya fa nekk bi ñu ñëwee bokk na ci baat yem leen wax seeni dëkk ngoog seeni tool ngoog seeni donga ngoog li ngeen jekki te noppi te jaamu yàlla te nangoo liggéey ku fi nekkal sëñ Touba ne leen moom ni mu moomee mbubbum boppam man nag maa ngoogu di wéy njaareem ndax app ba ma sama mag ju baax ji waxan jegeñ na te ne woon na ma fa lay wàcce ñibbi Touba nga xam ne sëñ Abdou nag teel a doon koo xam ne masuliya la teel a jël ndax booy xool diggante boobu 1914 ak 47 du sore ay 34 ans diggante boobu sëñ Balla wàcc ñibbi ñëw njaareem ñibbi Touba bàyyi ko fi mu wuutu bal la am responsabilité bu rëy masuliya boo bu rëy boo xam ne dal na ci kawam waaye nag masuliya bi dina diis ci ak wet waaye dina woyof ci wet ngir waajal nañ ko fépp foo xamante ne ji rek fa lañ ko war a jaarale ngir bu liggéey bi ñëwee ci ay loxoom dana ko mën a yenu waaye dana ko mën a étudier wàccuwaay yooyu yëpp amoon na. bi loolu amee nag mu tàmbali wuutu way juróom bu baax wi waaye nag uuf mbooleem ñi nga xamante ne ji ñoo di ay rakkam te kenn ku ne xam na ne loolu bokk na ci li gën a jafe ci ab liggéey muy kilifa gu mag gi jóge fi nga war a taxaw rassembler njaboot gi. rassembler taalibe yi leen lu nekk nga war koo fédéré ba dara du yàqu dara du luur dara du ñaaw ndax kenn ku ne xam na ne et jamono boobu bu liggéey bi réussiree ñëpp la ñuy tudd waaye bu échecgee kenn la ñuy joxeñ moom nag mu am taw féexi nag doon koo xamante ne ji ko suñ borom dimbali la tawféexal ko mu teel a taxaw taxawaay bu rafet jël ay responsabilité am njaboot gi kenn ku ci nekk mu xool fu mu la installé ba gis nga sax jaaxal moo fa dëkkal sañ mbay keroog ba mu ko fay dëkkal bokk na ci li mu ko wax mooy jaaxal daa sori te daan metti yow mi ma bokkal ndey rek laa fa mën a yóbbu dama bëgg na ginnaaw ci moomee li sëñ Balla yi la te waruñu koo bàyyi muy neen nga dem toog fa ñëwaat ci sëñ Fallu nag daan na ko ginnaaw dama ko ñewental nag dama bëgg nga baabal ma ko ba bu demee jaaxal man faa toog ba tey jii jaaxal googu mu récupéré ko mu bokk ci moomee li sëñ Balla coro yi looloo tam di ab jéego bu rafet boo xamante ne ji bu doy la boo xam ne bokk na ci yi nga xamante ne ji liggéey na ko bi mu ñëwee itam ànd ak mu Moustapha àndin wu rafet ndax dangay xool ne mbooleem njabootu sëñ Touba gi la ko tàmbalee ci Cheikh Moustapha al Karim ba agsi Cheikh Mouhamadoul Mourtada kenn ku ci nekk sëñ du am na ak yow benn alaaka benn diggante bu rafet boo xam ne booy xool. Euh, boo gëstoo histoire sax da ngay jàpp ne sëñ Abdou moom kii dong la féeteel wala nga jàpp ne sëñ Abdou kii dong la taxool te li mu seqal kii moom li seqal kii kenn ku ci nekk mu am lu rafet loo xamante ne dox na ko sa diggante yow. xam nga ne Cheikh Moustapha bi mu nekkee ci liggéey bi euh, muy liggéey jumaa ji ba 1945 mu wàccab liggéey sëñ Fallou bi mu ñëwee yitteem yi nga xam ne moo gën a nëree ci yitteem muy jumaa ji rek nu mu taxawee ndax xam na bëgg ak sëñ Tuubaa gi nekk ci jumaa ji. waaye xam na ne dénkaane yi nga xam ne sëñ Tuubaa dénkaane na ko ci jumaa yi soññee ko soññ yoo xam ne it moom sañ Fallu am na jataay yooyu teewe na ko mu bokk ci ko sëñ Tuubaa dénk kon la mu war a gën a boole ci liggéey yi gën a rëy gën cee jiitu dara jiitu ci jumaa ji waaye jumaa it kenn ku ne xam na ne ab tabax la tabax boobu itam gis nga sëñ Tuubaa sax bu saa yi buy tudd jumaa ji lu ci ëpp ci xasida yi baatu binaa lay tudd muy baatu tabax tabax boobu bi mu ñëwee nag moom sëñ Fallu kenn ku ne xam na ne bokk na ci li gën a nekk priorité ci ab tabax suuf ci la bokk suuf soosu nag bi ko sëñ Fallou yëkkatee teg ko ci loxob sëñ Abdourahmane Mbacké te boobu li lay wan ne nit ku nekk dafa amub cëram ndax bi sëñ Fallou di sase loolu kilifa yu baree ngi fi te sëñ Fallou mi sase itam ku xàmmee la te ku xam li xew la waaye li tax mu jël ko teg ko ci loxob sëñ Abdourahmane xam na ne ab cërama waaye xam na jomam xam na jàmbaaram xam na ngorom xam na fitam xam na dogoom bi loolu amee sëñ Abdou daal di tàmbali nag ànd ak mbooleem njaboot gi kenn ku ci nekk nag mu am fom mu la pointé jël sëñ mbay mi nga xam ne rakkama def ko ñu liggéey bi ñu tàmbali di gas kàmb yi nga xam ne fii wetu kër sëñ Abdou Khadir gi nekk mooy ci wetu kër sëñ Mourtala gi amoon na ay kàmb boo demee gaar bu mag amoon na ay kàmb boo demee Soura amoon na ay kàmb boo demee Ndaamaatu amoon na ay kamb nga xam ne kàmb yooyu mooy yi nga xam ne fi lañ doon gase suuf si di ko indi ci jumaa ji te boobu it da gis ne itte yiñ ci doon doxee ndax jamono jooju mboolem jumtuwaay yu bees yi xew léegi nii amutoon ay palaat wala yenn barab boo xam ne di fa mën a def suuf rek kenn ku ci nekk moom la yor sëñ Abdou fexe ba mboolem liggéey bi nag fenn fu ci nekk rek dëkk yi nga xam ne sax dañoo aju ci moom te nekk feneen fu dul dina fexe ba dina wut wata boo xam ne dana fa dem di jëli ñii bu ñuy sonnee ñu jël ñi remplacer leen dem indi ñeneen nga xam ne saa yi bu ñu xëyee nag moom itam day wàcce ci terrain bi nga xam ne liggéey bi bi ku ko sëñ Fallu joxe itam du caagiinu daa jël sëñ mbay ne ko liggéey baa ngoog toog këram di nangu àddiyee déedéet bu xëyee ci ngi gis gi lay dem toog bu sëñ lu ñëwee ba mu nuyoonteeg sëñ Fallu saafoonteeg sëñ Fallu diir day wàccaat ci terrain bi moom itam du contrôler liggéey ak doxil doxaliin wi ak taxawaay bi te mooy liggéey boo xam ne itam képp koo xam ne raw na la ci raw na la ba faw muy muy muy liggéey jumaay Tuuba ku la ci man itam mën na la ba faw ku la ci gën itam gën na la ba faw te ku la ci raw dutu ko dab ndax mooy liggéey boo xam ne liggéey bu ko gën a rëy ci yi nga xamante ne jii Sëñ Tuubaa wàcc na ko ginnaaw xamee su ko léegi moom nag mu am tawféexe nag loolu di di di di ci ab cëram mu doon liggéey boo xam ne nag bu metti la ndax xam nga ne Sëñ Fallu bi mu dikkee rek ba ba ba mën nga ne ba installé rek dafa daal di attaqué jumaa ji te jumaa ji boo xoolee ñu ngi ko ubbi 63 kon da nga gis ne Sëñ Fallu moom bu la neexee nga ne 45 wala 46 wala 47 ba 63 amul benn yëngu wala benn dal bu génn jumaa ji leneen lu ñëw rek day def si jumaa ji sëñ lu boole ko ak moom wala mu def lee diggante bu gàtt dellu si wat ci jumaa ji kon loolu da gis ne du benn fan du ñaari fan du benn weer du ñaari weer waaye ay at la diggante bu yàgg la sëñ Abdu takku ci njàmbaaram ci jomam ci aw fitam ànd ak mbooloo mi fexe ba liggéey boobu àgg te kenn ku ne xam ne tàmbali mbir yomb na waaye aw àkk moo jafe dem ba àgg fa nga xamante ne ji mooy dayo ba loolu mooy li jafe moom nag mu am tawféexu jooju loolu itam bis bu set damay wax ne nun waa kër sëñ Balla Coro yi amel nañ sëñ Abdourahman ak cant bu rëy rëy rëy ngir kado yi nga xam ne jawaayis muy xeeti neexal yi nga xam ne sëñ Fallu doon na ko takkale ci jumaa ji biñ ñoppee dinaa wax ne garaat bi gën a tiital nit ñi ci ak wet nga xam ne nii moom moom moo gën a jàqaloo nit ñi ci woy xam yi ak woy xelu yi mooy bàmmeel mbooleem ñi nga xam ne xam nañ dara ak mbooleem ñi nga xam ne xelu nañ yaakaar naa ñëpp moom li leen gën a tiital bàmmeel ci la bokk ñun nag bokk na ci jagle yi nga xamante ne ji Sëñ Abdou Mbar jaaral nañu ko Sëñ lu ñu am ko ci muy Sëñ Fallu leen teggil nañu leen ayu suuf ba pare nag ne ko njariñal suuf dina leen yomb loolu bokk ci te kenn ku ne xam ne Sëñ lu keroog dàll yi mu soloon ci jumaa ji bi mu noppee bi mu ko summee Sëñ Abdou Mbar la ko jox ngir bég gum bég ci moom ak ak ak sant gum ko sant ak gërëm gum ko gërëm te bokk na ci kàddu yoo xamante ne jiitam sëñ Fall wax na ko mooy maanaam la ko la ko ñoo nit ñi daa jëfal ñam jamonoonte lañ ko daan jëfal ba am lañ am yow jëfal nga nga xam ne kàddu yooyu tam bokk na ci témoignage yi nga xam ne sëñ Faru seereel na ko sëñ Abdourahman ci taxawaay bu am solo boobu nga xamante ne ji taxaw na ko ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi nga xamante ne ji benn liggéey gënu ko rëy waaye itam doonutoon koo xamante ne ji daa ñëw léegi jumaa ji nag dong dong dong ko liggéey leen Sëñ Tuubaa doy na te ëpp na waaye teewul nag mu yar ay taalibe bi teewul mu sanc ay dëkk teewul mu tasaare liggéey Sëñ Tuubaa bi yaatal ko ci fànn gu man di doon defaral Sëñ Tuubaa jëmmam ba waxuma la jëmmi Sëñ Abdu Mbar wala lu mbokk ci ab du Mbar waaye ab fatoom rek ku ko xool xemmem yoon wi loolu nag beneen beneen qualité la boo xamante ne ji itam dolli na ko ci liggéey yi nga xamante ne ji liggéeyal na ko Sëriñ Tuubaa ndax kenn ku ne xam ne ne tey ñun ñi nga xam ne dañuy kër kër di gëstu ci yoon wi bari na ci ay kilifa barab yu bàyyi woon yoo xam ne nii tey jii boo demee barab yooyee gent na wala barab yooyee rab waaye tey jii boo doon jël misaal da ngay jël diggante mbar ak jaaxal distance yi ni mu toll kilomètres yi ni ñu toll ni ñu soree fenn fu ci nekk tey jii mu suqali ko moom sëñ Abdourahmane ba foofee di dund fenn déewu boo deman tey jii njaay dàng yi nga xam ne léegi ñu ngi koy wax nga gis melokaan wi nga xamante ne ji moom la yor taalibe yi nga xamante ne ji moom la defar tawféex ji nga xamante ne ji am na ko waaye jaxasoo gi nga xamante ne ji itam jaxasoo na ko ak ñi nga xamante ne ji moo di mbooleem njabootu Sëñ Tuubaa gi def na xeeti liggéey yoo xamante ne ji lu mat a bàyyi xel la lu mat a yaatal la bokk ci ay jikkoom mu nekkoon nit ku tabe nit koo xam ne néew na nga gis koo xamante ne ji way na ko wala nga gis koo xamante ne ji def na témoignage wala nga gis koo xamante ne ji wax na ci moom ba bàyyi te waxut ci tabam gu réy nga xamante ne ji tabe woon na ko doonoon nit koo xamante ne ji itam ku amunuk taalube la donte ne lépp loo xamante ne ji lu ñuy wax xeetu xam-xam la ci wàllu zahir wala lu ñuy wax xeetu xam-xam ci wàllu lasaraar wala yeneen xeet ku ci peegu woon la ku ci teel a géeju la waaye jëleen sëñ tubaa nag teg ko ci kanamam jël sëñ tubaa teg ko ci ginnaawam teg ko ci ndeyjooram teg ko ci càmmoñam léppam di sëñ tubaa di dund sëriñ tubaa ci biir waaye di dund sëriñ tubaa ci biti waaye nag ñi nga xam nag ne ñoo di ay rakkam di njabootu Sëñ Balla Coro itam ñoom itam mu teel leen a orienté ci loolu ba fi ne mbooleem njabootu Sëñ Balla Coro gi ñi nga xamante ne jii euh, nekkatuñ fi seeni doom koo ciy waxal ba ci ñi fi nekk ni actuellement koo ciy waxal ci ñoom dangay gis ne seen biir biiri wax da nga yëg ne sëñ ab Mbar rek lañ fan ndax dañuy wax wolof day wax ne mbërka la jàggi ruur te ginnaaw ñoom xam ngeen war a xam sëñ Balla Coro bu dee am na itam des na lu baree baree bari sëñ Abdou ñëw ndax koo xam ne moom sëñ Abdou boo ko doon jàngale rek tey ñu ne la 81 la fi jóge rek kooku rek yaakaar naa mu jóge léegi diggante bu yàgg la sàkka sëñ Balla ma fi jóge 47 kon booy xool da naan ñoom xamuñu sëñ Balla sëñ Abdou lañ xam waaye nag mu ñàkk nag taaw boo xam ne bu matub taaw la coiffé njaboot gi uuf ñëpp kenn ku ci nekk la war sa diggante ak moom mu def ko taxawu la taxawaay bu rafet jéegu yu rafet mu am ko ba tey jii koo ci wax ak moom su waxee ba daaneel da ngay gis ne sëñ Abdou Mbar rek la bëgg sëñ du Mbar rek la sopp sëñ Abdou Mbar rek la fonk waggar ko war naa la ko waaye saa bu nekk itam dama ci wax ne fonk gi ko Cheikh Mamadou Fadal fonk ba jël doomam jox ko mu dëkkoo ko te ki nga xamante ne ji moom la ko Cheikh Mamadou Fadal jox muy soxna Abi ku gëstu histoire am xam ne cërub góor la yor loolee rek ci ki nga xamante ne ji day gëstu dina xam ne loola ab cër bu rëy rëy rëy la boo xamante ne ji am na ko mbooleem njabootu suñu Tuubaa gi nag la ko tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadel Serigne Souhaïbou Serigne Abdou Lahad gis nga Serigne Abdou Lahad ni nga xamante ne ji ni la meloon ak moom Serigne Souhaïbou ñu amoon jaxasoo biir jaxasoo biti ci wet gu man di doon waaye ki nga xamante ne ji mooy Cheikh Mamadou Mourtada moom itam mu amoon ak alaaxa relation boo xamante ne ji bu rafet la seen diggante waaye gis nga euh, maa ngi koy wax barki démb Euh, benn waay rek euh, boo xam ne ci kër gi la bokk dama teewloo tur bi sëñ mbay histoire yu bari buñ lay nettali da ngay dégg maanaam sëñ abdu nee na ma nga xam ne même sëñ mbay sëñ abdu rek la faawoon moom la defal muy sëriñam def ko muy kilifaam def ko muy xaritam def ko muy léppam nga xam ne moom euh, góor gu baax gu ñuy wax Baye Sadikh Ndaw nekk fii da benn bés mas na ma wax ne ma sëñ Baye jaaxal lañ la tudde ma ne ko dee mu ne ma ndax mas ngaa fekk seen ab jataayam ak sëñ Abdou ah, man nag ñoom wax dëgg yàlla lu ci bari dama koy dégg nii rek mu ne ma sëñ bay sëñ Abdou rek la gëman boo ko masaa fekk gaal yi mu nee na ma gaal yi sax bu sëñ Abdou demaa fenn ci wutir wala dara su ñuy wàccee gaal yi sëñ Baye du nangoo seetaan day takk ndiggam ñëw jàpp di wàcce ni nga xamante ne jii ni la ko taalibe di def mu ne ma noonu la ko fonke woon noonu la ko waggare woon nekkat nit ku baax nag nit ku sell nit ku yiw koo xam ne ak dundam gépp da koo jeexal ci topp boromam tabaraka wa taala loolu it dina ci dooy sëkk témoignage keroog bi mu wàcceeb liggéey ci hôpital principal bi ci Ndakaaru 1981 euh, te Cheikh Abdoul Khadir radiallahu anhu mu baax ma taxawu ko waaye Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne moo fi nekkaloon Cheikhul Khadim kaddu ya nga xamante ne ji moom la ci yëkkati nga xam ne Cheikh Abdou bokk na ci kaddu yam wax ëllëg yowmal xiyaam bu nu dajee ci kanam sëñ Touba noonu noo koy seereel ci liggéey bi mu doon liggéeyal sëñ tubaa nga xam ne engagement boobu la Cheikh Abdou Lahad jël ci ne ëllëg ñoo koy seereel ci kanam sëñ Touba te ko xam Cheikh Abdou Lahad ci ak dëggoom xam Cheikh Abdou Lahad ci aw fitam xam Cheikh Abdou xam ne ab tànkam moom ci siraatal mustaqim rek la koy teg ku mën a jël engagement yooyu ba tey jii sax histoire yi li muy bari bari ak nettali li muy bari bari dina néew loolu nga dégg koo xam ne dañ naa la Sëñ Abdu Lahat nee na la ëllëg maa lay seere loolu néew na nga dégg ko ci histoire waaye moom Cheikh Abdou Lahat radiyallahu anhu taxaw na ëllëg yowmal xiyaam moo koy seere ci kanam Sëñ Touba te loolee yaakaar naa ñu baree baree bare bare ci bokk yi mën nañoo am taxawaay boobu nga xam ne moom la Cheikh Abdou taxawoon mooy ñi nga xamante ne ji ñoom la bokk bokkaloon jamono ci ak njàmbaaram kon daal jëmm la joo xam ne marqué na apprentam jëmm la joo xam ne dugal na boppam ci taarix ndax tey jii boo ne sëñ Abdourahman Mbakke képp wala nga ne sëñ Abdou Mbar képp ci ñi nga xam ne tur woowu leen gën a xam bu la neexee bul indi sëñ Balla Coro moom bind na histoire fi histoire bind na ci boppam fexe na ba liggéeyal na sëñ Touba ba am ci sëñ Touba cër boo xam ne moo ko liggéey bokkut ak cër bi nga xam ne nag dafay ñëw fekk ay kilifaam yu baax yi fàggul ko ko fa kon nag yàlla na ko yàlla fayal te gërëmal ñu ko bu baax a baax a baax te dolli ko ay leer Euh, euh, te taas nu ci barkeem bu baax a baax a baax a baax noo ngi sant bu baax njaboot gi ci taxawaay bu am solo bi ak jéego yu am solo yi di ziyaara bu baax Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy coordonné taxawaay bi di ci jokkoo ñun boobu ba tey di ci dox jéego yu rafet yéene ji itam ngir tasaare liggéey bi yàlla suñ borom barke lépp ci barke Cheikhul Khadim di ziyaara bu baax suñu Cheikh Abdou Ahad sëñ Cheikh Abdou ak mboolem bokk yëpp sëñ waxtaan boobu ak bokk yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ziyaarawaat bu baax kilifa gu tedd ki nga xam ne nag euh, moom ci ab ëttam la ñu nekk muy sëriñ Cheikh Abi yaakaar naa moom jëmm la joo xam ne suñ ko tegan rek mën naa jàngale lu baree baree bari ci jëmm ji nuy waxtaane muy sëñ Abdou Mbar ndax jëmm joo xam ne keroog bi ñuy defab jataay euh, TFM maak Jili Ñang nee naa ko moom ci kaggoo yoon wi la bokk ci bibliothèque yoon wi nuy ñaan suñu borom gën ko fay yàggal te gën ko wéral te gën koo sàmm bu baax a baax wa axiru daawaana an alhamdulilahi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.